alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala nabiina muhammad wa aalihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ngeen baal ma mbokki àdduna bi mbokki diaspora bi daarul birr wal irshaad ak daarul birr tv mooy ñëw ak yéen ci benn rubrique boo xamante ni moo tudd al azkar lan mooy al azkar mooy ñaan yi nga xam ni nit ki war na koy def te yépp day delluwaat ci jaamu yàlla ragal yàlla waaye muslu ci yàlla tey nag dañu leen indil bind boo xamante ni ñëwoon na ci suñu dars bu le passé ñu bari ci komanteer yi ñu doon ñu ko laaj ndax bind bi mooy ñaanu ku ragal nguur gu jeng comme ni mu nekkee ci Afrique nekkee ko ci sunu réew lan mooy nguur gi jeng mooy nguur goo xam ni tiital na population bi tiital société bi tiital journaliste yi tiital boroom xam-xam yi boroom kër yeeg ñépp dem nañ ba mel ni dëkk bi dafa nekk état de siège kenn ku nekk sa téléphone dafa mel ni yaa ngi sous l'écoute surtout bu fekkee ne leader d'opinion nga wala nga nekk koo xamante ni dangay faral di yee nit ñi wala nga nekk koo xam ne dangay jàngale diine dangay xëy bés rek ñu ne la wuyul wala ñu ñëw jël la palam-palamee la wala ñu patam-patamee la xëy rek dugal la kaso say mbokk jaaxle say am di jàmm jaaxle sa waa kër jaaxle sa njaboot jaaxle ñépp daal di jaaxle mooy kon dund googu bu ci nit nekkee mi ngi dund ci jamonoy fitna fitna nag baaxul ci lu wow baaxul ci lu tooy ndax ñax gu wow dana lakk ba lakk gu tooy fitna yooyu bu amee dangay xëy rekk nguur mën a dal sa kaw jaare ci mel ni procureur walla ci juge police gendarmerie lépp waaye bi gën a dangereux mooy di dund ak i RG foo nekk ay renseignements généraux nekk fa moo tax maa ngi dénk sama bopp di dénk njaboot gi di dénk soppe yi ñu gën a ragal yàlla gën a moytu waaye moytu di wax lu leen di dugal moytu it nag téléphone yi ndax liñ ciy wax lépp wala li ko nuru mën ngaa xëy ñu dugal la te bu ñu la dugalee la dugal xob ci pax du ko ci génne képp koo xam ni baadoolo nga comme man walla nga nekk ku amul wéeruwaay ci dëkk bii bu ñu la yóbboo kaso fa lañ lay fàtte moo tax ñu ngi ñaanal yàlla suñu mbokk jullit yi nga xam ni yàlla nattoo na leen loolu yàlla na yàlla teggi fitna yooyu ci seen kaw delloo leen ci seen njaboot saalimin ghanimin yonent bi dañul di jàngale as sahabatul kiram dañul di jàngale kon tey maa ngi dikk ak yéen ci duaa u man xaafa zulma sultaan ñaanut ku ragal tooñut nguur moo xam ci président ak ñi mu jiite ñépp procureur ñi mu jiita ñépp juge tribunal commissaire commandant général ak képp kuy solte ni mbokk ñaan bi saa boo xëyee di ko ñaan yàlla mun na laa musal ci ñu mel noonu tekkiwul nag ni boo ko ñaanee rek def lu la neex déedéet ndax saxaaba yi doon nañu ñaan waaye nattu yàlla di ñëw ci ñoom kon mbokk jullit ñëw na ci téere bi ñuy wax adabul mufrad cheikh imaamal albaani wéral na xadis bi ñëw ci limaam Buxaari comme ni mu ko nettalee mu ne nit ki war nay ñaan ñaan bu mel ni su xëyee te ñaan bi déglu ma mbokk enregistré ko partagé ko mokkal ko waaye nga gëna a ragal yàlla te moytu ñaan bi mooy allahumma rabba samawati saba wa rabba al arshi al azim kun lii jaaran min fulaan fulaan moomu nag da nga koy tudd su dee président wala procureur wala leneen min fulaan wa ahzaabihi min xalaa'iqik an yafruta alayya ahadun minhum aw yatga azza jaaruk wa jalla sanaa'uk wala ilaha illa ant mbokk yi ñaan bii képp koo xamante ni xëy nga nga ñaan ko yàlla mën na laa musal moo xam góor nga walla jigéen asar la boo xam ni nag mu ngi jóge ci abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu wa te ñaan boobu li muy tekki mooy ay yow yàlla yow mi borom asamaani juróom-ñaar yow mi borom aras bu màgg bi yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci diw ak njabootam nga musal ma ci diw ak ñëmu jiite ku mu ci mun ci doon nga wax loolu su ko defee mbooleem bindeef fii nga wax ni yàlla maa ngi muslu yow nga musal ma ci ñooñee yow yàlla tedd na dëgër na képp ku wéeru ci yow maa ngi ñaan yàlla bewug aji bew yàlla naa ci mucc loolu mooy tekki ñaan wi ci tënk yàlla nañu yàlla defal jàmm defal leen ko salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.